jàng. waaw bon man waxtaan naa fayta fayta waaw Tamba Tamba waaw waaw. mu ne ma daal yaa ko jàppale ba mu taxaw fi mu toll nii. waaw man nag ma nekk jeune boo xamante ne yàlla def na ci man talent. ok bu nit ku ma jàppale moo tax ma ne fayta bi mu waxtaane moom mu ne ma su ma ñëwee ci yow daal ma ne ko ya naa wax rek moom moom boole ak yow. waaw dinaa sawar ci loolu fayta sama booy la wax dëgg yàlla mu nekk booy bu am ambition mm. nekk artiste. nekk en même temps commerçant. Mm. ma financé ko dix millions. ubbil ko magasin muy jaay ay dàll muy jóge Tamba di ñëw Dakar di jënd ay dàll. Ah. waaw day commencé quinze ans rond point camp militaire lay commencé. Ah. ba stop Abdou ko fa lay rangé ay dàll di jaay. mooy maanaam toll na fii ba buntu Pikine lépp ay rangé dàll moom moo fa rangé ay moo fa rangé ay dàll di jaay ma financé ko mu ne ma dafa am ku muy bëgganteel ku tudd Amine. ma ne ko waaw loolu dinaa ko lu ma dem ba Congo comme jabar ji congolaise la ma dem ba Congo. Congo seeti ji kooku takkal ko ko andil ko ko man tey wàllum production dama ciy sawar parce que produit naa xale bu ndaw bu am avenir bu tudd Boubacar dëkk Tambacounda doom day Sadio waaw am na son bu bees boo xam ne mu ngi studio bientôt ma clip ko te clip kii boobu waa TV5 ñoo koy clip loolu du dara man loolu laa fi nekkee jàppale jeunesse bi Boubacar jàppale naa ko parce que dafa mën a woy pur mm. mu ngi toj fi mu nekk Tambacounda te ba pare mu fier ci fi mu dëkk naan ma sama clip sama dëkk laa koy defee ma ne ko amul problème waaw waaw waaw dinaa la clipal yow nag amul problème léegi da ngay a ma dégg su woy bi ñëwee wax dëgg yàlla man am naa ñoo xam ne sama am naa

so bi ñëw. bu dee tasaare àdduna. tasaare waaw bu dee woy rek moom loolu moom du nekk benn problème. ok léegi da ngay acapella mu dégg. bu dee gën a côté. Ah. la mën nañ ci dem. bu dee non non olof ngay woy. Ah, ba pare nga woy démb. parce que damaa bëgg woy démb. waxuma la woyu léegi de. waaw waaw léegi ay woy yoo xamante ne saa dama koy déglu dañ ne ay waay fekk ma seet leen woy leen pour ma produire ba ñu woyee dama ne li woyu tey la man woyu démb laay produire comme ay ñoom ki ne la mam concert googu lu ñu ay Ndiaga Mbaye ay Youssou Ndour ndeysaan yaa ay Papa Thione daw ku weeree di bul ko daw ba mu xam ko man naa yokku la ko metti ni baaram jaam ni baaram jaam wàcc nga ma dégg parce que man du ma produit woyu jàmm da ngay woy loo xam ma xool woy ndax neex na ma bu boobaa moom mun ci def parce que sa clip su dee Boubacar clipam bi Tamba dama dama tëj quartier yëpp financé fi clip boobu laa tëj kër gu nekk ma dugg fa joxe ma cinq cent mille pour ñu tëj parce que clip bi waa TV5 ñoo ñëw tourné ko waa Canal ñëw jàppale leen waa Al Jazeera ñëw waa LCL9 ñoo ñëw yoroon wàllum son bi moo tax Boubacar mu ngi toj Tamba actuellement instant bi dama ko bëgg jël Zénith Bercy bi di ñëw ma yóbbu ko mu di jël ma foofu concert parce que lu mu woy convaincre na ma convaincre na ma waaw léegi da ngay woy benn woy ma dégg après ma soog la financé xool parce que man xaalis bi ma yor doyow ma ko dara man sama compte actuellement cinq mille milliards moo fa ne ah. cinq mille milliards cinq mille milliards moo nekk sama compte da ngay woy ma jàppale la léegi ma xool ah, Faruwaay Linguère oh, oh, oh, wule ñaani bañ yee jam fari ñoo wule gaynaaga yoo yee yoo jam fari maa yëpp wax dëgg yàlla kontaan naa trop trop trop trop parce que way damaa bëgg nit ku dégg te wax dëgg yàlla da ngaa dégg te ngaa mën a woy léegi clip bi mun nga commencé yëgle mun nga commencé yëgle léegi léegi su ma paree clip bi dinaa ci def 300 millions. 300 millions ci clip 300 millions ci clip parce que dama bëgg clip bu extraordinaire clip boo xam ne su génnee day toj day gën a def buzz gis nga. sila men be yala la ka wari mina molu la ala tola fiken jamo way lolu clip bobu mako financé ya finance clip teken jaay waaw mako financé clip bobu mako financé mako ko tourner ne sila be yala la ka wari mina molu la ala tola mooy jullit yee ngi wër di nangu xaalisu jàmbur yi ci tudd yàlla te du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon son boobu maa ko financé xam nga tey liquide bi diggante bi ñoom ñëpp produit parce que man du ma producteur bu ndaw producteur international la producteur international la Vaiday maa ko produit Vaiday Vaiday maa ko fi indi woon Vaiday benn waaw maa ko fi indi woon maa ko que dama ko produit mu am buzz fi mu dëkk produit seet si na ma xam nga kër ga ba ma seet see kër ga après sama waa gàlleel mm-hmm. sama jàngal ko togg Faat Ndoy moo jàngal bay day togg Faat Ndoy sama benn rakk bu jigéen moo ko jàngal togg ceeb xam nga mu moo xam togg ceeb saa a waaw si man du ma nit ku ndaw de ah parce que sama man am na benn waay doon wax mooy ehe jam ehe yaayo ala jam ñe ko ñaago jam baaba maan la waaw baaba maan son boobu maa ko doon waaj a mu am ku ko njëkkanteeg man son boobu koo ko def si cinq millions ma ne ko amoo xaalis woowaat ko bindaat son bi ee yaayo alaa jam ma def si jam jam jam jam jam jam jam jam bi maa ko lu ko defoon def si ay jam jam waaw jam bi maa ko si yokk ma financé waat son boobu produit waat ko defaat si son boobu deux cent soixante dix neuf millions

xam nga maa leen di bindal waykatu Grand Yoff yooyu ay dib maa leen di bindal xam nga dib il est le meilleur son bi maa ko bind def ci point e, eggali ko xanaa maa mën a bind way nga bind yi ba pare def def ci point e, eggali ko xanaa te ba may tourné kii bi booy baa ngi koy tourné booy heure couvre-feu sa son heure laa koy tourné loolu warul de non yow mooy ku international ngay waxal ancien bac parent man fii laa nekkoon internat internat man man commando laa woon ma juge ba ñu jël ma yóbbu ma camp camp militaire bi nekk quinze ans bëggu ma nekk fa général ñu jële ma boobu yóbbu ma mission ma dem Kenya xeex gars yi di tirailleurs di tiire sama gars yi may benn may bonde bali xam nga dama taxoon benn téere boo xam ne loo ma tiire day nekk mbuusu ndox jur boobu jur boobu deewoon naa tollu ma woon nii xoola boot ay nit moo tax ma jeex trois mille trois cent kilos laa woon ñoom ñoom dama leen téye di boot ma bootandoo lu ma quatre mille quatre cent personnes di diree ko ak ñoom ci àll tan Kenya bi sama yaram bi di rës ba ma nekk vingt trois kilos du ma ko ndaw booy yaa ma xamul nag kila kila ki la xam na ma ki la booleeg man xam na ma bu baax a baax fooy dem ni ah, ok bàyyi yow comprendre xam na lu tax nga neex ma doo ko daw da xam ne dama mar deuxièmement xanaa xam nga li nekkul ndoxu ne robinet ndox nekkul ndoxu robinet ndox bii nii ci robinet ci robinet bi la jógee waaw xam naa mais man suñu robinet kër dama koy ubbi di fa sotti zam-zam di ko chaque jour damay ubbi sotti 3000 litres zam-zam waaw zam-zam ko woo kii bi mason bi raax ko kuule ko. talase ko mu wow ma ñibbi chaque jour. léegi xam nga nu ñuy def dama lay gunge parce que awma temps dafa am fu ma war a dem. non non ah? garaaw ah, garaaw. ok waaw léegi mun nga yëgle clip bi ah. déet jarul kay ma koy yëg. yëg neen c'est moi qui a maa la ko wax du ma ko ndaw waxoo ko ndaw tamit dégg nga baax na baax na merci beaucoup boy. jaajëf ñoo très gentil. ah waaw mu ubbi la. Amar. Amar. ubbi leen boy mu dem Gandi. ok attendez là boy. ok merci beaucoup. merci waay.